là ki son une alternative crédible ñooñu nag buleen mag ñi gunge bu leen mag ñi jàppale mën nañu defar réew moo tax li ñuy wax ne teg nañu pôle judiciaire financier d'accord ma woon ci CREI yi parce que CREI yi nañu ko tëggee baaxul waaye bii ñu teg démb man gis naa ci ay magistrats yoo xam ne kenn du leen def loo ñu def barke xaadimul Mustafa gis naa ci man ay magistrat yoo xam ne kenn du leen def loo ñu def donc sama xel dal na ca ñooñu reddition des comptes oui ñi sàcc alalu réew mi nañu ko goqi te ñu fexe ñu bañ koo goqi parce que lu nit goqi amatul njariñ nañ fexee ñu génn xaalis bi ñi sàcc alalu réew mi nañu leen tëj ci kaso yi pour Sénégal mun a récupérer xaalisa waaye li may bañ rek mooy làq dóor doom doom làq doom dóor doom moo tax ñun ñu ne pôle financier boobu dana nu fa déposer ñetti plainte ñun dana leen jox liggéey parce que nag yéen xam ngeen ne coowal assemblée nationale bi yëpp lenn dong lañ ci jublu woon pour ñu bañati wax ci mbirum ONAS coowal assemblée nationale bi yëpp xam ngeen ne lenn dong lañ ci jublu woon pour coowal ASER ñu bañ ci waxati xam ngeen ne lañu tax ñu patam patamee parax paraxi xaatar xaatar yi ba daal di tas assemblée nationale loi ba ñu dugaloon pour criminaliser góor jigéen la ñuy bañ loolu mu yemb parce que nag ñoom ñoo ne toléré nañu góor jigéen yi ci réew mi ñun toléré wuñ ko ñoom ñoo ko wax kon du ñu leen fi jox benn doole assemblée nationale pour ñoom ñuy indi tolérance góor jigéen ci réew yéen xam ngeen ne li tax ñu parax paraxee tas assemblée nationale mooy tëj làmmiñu ñi ñi ci coowal Cheikh Oumar Diagne waaye nañu xam ne sénégalais yi taxaw nañu jatu ni soccat te fas yéene nañ ko jëflante ak ñoom kon ñi jiite wàllu justice ci réew mi nañu xam ne sénégalais yi ñu ngi leen di bàyyi xel waaye gis naa bàjjanu bàjjanu système bi altine moom bëyu rubb bi ba mu génnee nee na yaay moom day kaas pour ancien régime bi fi nekkoon seen bilan musiba bi ñu fi def waaye yow nit dana fi def 12 ans nga def moom 11 ans après nga ne non non non ni mu yore réew mi baaxul waaye léegi yow loo ca doon moo tax ma ne ko na góor góorgóorlu na góor góorgóorlu ba moom mu leeralal ñu na mu yore woon caisse euh, conseil économique social et environnemental parce que nag. moom ci boppam rapport daf ko joxoñ baaraam tuuma moom bayum ruba mooma rapport IGE daf ko joxoñ baaraamu tuuma na leeral loolu comme day wër di leeral rek nañu wax jaaxle bi waa mi am comme day wër di leeral rek nañu wax 450 milliards yi ñu leb te tey jii ñu ne keesu réew mi amul dara fu xaalis bi jaar cin faqul bënnul la fa newoon jógu fa nañ ñu wax fu xaalis bi jaar ana xaalis bi moom bayum ruba moomu nañu wax lu tax Ousmane Sonko deful déclaration de patrimoine Diomaye def na déclaration de patrimoine ñu xayma ko ci genn wàllu milliard ci koo xam ne daggkatu juuti dong am na genn wàllu milliard waa moom mi ko jiitu moom ñaata milliard la kon moom mi taxaw sol robu avocat et sama sama bàjjan nag dafa am dafa am fulla de fi nga koy gis noonu poste rek a ko intéressé ku ne ci yéen ñi xam na ne buñ ko faloon assemblée nationale mu nekk njiit la kenn dootu ko dégg waa léegi boo moom boo ko falee ku wax ci yow moom mooy jug tontu la boo ko follee yow boo waxee moom dana jóg tontu la gis nga bañ ko falee ak léegi fu gaa fu ñu waxee jëmee ci gaa yi moom mooy génn tontul gaa yi am na ful li ci des nag ñun la ñun sénégalais yi parce que mënuñu noo nax ñaari yoon mënuñu noo gëmloo ne dañu bëgg a changer le système munuñu noo gëmloo ne système bi baaxul ñi yoroon système bi il faut ñu jëlee leen fi. tey jii ñoom ñooñu nga xam ne ñoo rogganti woon système bi tey ñoom ñoo nekk ci biir système bii moo tax élection présidentielle bi ñu jógee taxaw ne ma waaw léegi da leen di jàppale ma ne jàppalewu ma leen parce que gëwuma leen man dama jàppoon ne système laay xeex ñoom ñoo fi doon taxaw naan Bougane pion Macky la Bougane pion Macky la ndekete punkalu pion Macky yi dëgg ndeke ñoom la gloria bi Macky doon annoncé dëgg ndeke ñoom la ña nga xam ne ñoo doon jaar ci suuf di sous di waxtaan ak Macky sàll ba mu am yaakaar ci ñoom jox leen réew mi ndekete ñoom la et vous allez voir gis nga la traque des biens en fait euh, reddition des comptes bi am na ci ñoo xam ne du ngeen leen si mus a dégg parce que ñooñu dañu bokk ci protocole teeru bay soogi dañ leen ci boole et vous allez voir je sais actuellement yëf yi tàng na loolu ñoom ci seen biir parce que am na ñoo xam ne dañ leen war a topp am na ñoo xam ne ñenn ci ñoom dañ taxaw ne kenn du leen topp et nag nañu waxante dëgg réew mi kenn moomu ko dëgg dong moom moo fi nekk mënuñu gëmloo nit ñi ne ñi yàq réew mi diw ak diw ak diw la diw mii participer na ci ñuy bàyyi diw ndeyu mbilli gi ku ne xam na ne Macky Sall la moo tax gis naa suma grand le professeur Boubacar Seye ma koy encourager d'ailleurs ci combat bi mu nekk parce que man dama bokk ci ñi gëm ne loi d'amnistie dañ ko war a abroger et incha allahu rabbi bu ñu yàlla mayee majorité à l'Assemblée nationale danañu xam ñan ñoo rey 86 sénégalais yooyu danañu xam ñan ñoo nekkoon ci ginnaaw yor ay fetal di tirer sur des jeunes dana nu xam ñan ñoo rey martyr yooyu nga xam ne dañ doon xeex pour la démocratie sénégalaise parce que nag am na tey jii ñoo xam ne duñu nelaw am na tey jii ñoo xam ne jàpp nañ ne dañu war a dem assemblée téye assemblée bi pour que am nisti boobu di wéy ci Sénégal ñun jàpp nañ ne loi d'amnistie boobu dañ ko war a abroger dañ ko war a dindi ci Sénégal ngir ñu xam nag kan moo def ak kan moo def lu jëm ci rapportu FMI wax naa leen ko sànq mais man <laughs> yàgg naa leen wax. bu ngeen fàttalikoo émission bi ma def ak Pape Ngagne Ndiaye lu ma leen wax gis nga réew kenn du ko yore xët-xët réew dañuy